asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki seetaan axiru zaman fii ci Seneweb TV noo ngi dellu siwaat ci beneen waxtaan ci axiru zaman gannaaw ba ñu leen jaajëfalee ci bàyyi xel ci waxtaan wi nu génn euh, di sant di gërëm ñi nga xam ne ni yëpp ñooy bàyyi xel jataay bi fu ñu mënti nekk moo xam ñi koy bàyyi xel nekk ci biir réew mi la wala ñi bàyyi xel jataay bi nekk bitim réew sant nañu ñëpp gërëm ñëpp ñaana leen jàmm ak wér ak sutura aaxiru zaman bi weesu ñu ngi woon ci mbirum massage yi di phénomène boo xam ne tasaaroo na léegi ci biir réew mi rawatina ci internet bi publicité bi partout ci facebook beeg site internet yeeg fu ne ay jigéen ñu ngi fay dem di joxe seeni numéro di publier ay photo di wane ne dañuy liggéey ci massage te di làqu ci ginnaaw yépp lu ci bari 90 virgule nangam pour cent yi euh, jaay seen bopp gu ñu nëbbatoo la ci turu massage muy lu xaram loo xam ne charia du reconnaître mukk góor di dem ci jigéen na yaramam day métti pour mu bësal ko ko forote ko dafay xaraam charia du ko maye yonent bi waxoon na njaaloo loxo mooy laal fenn rek la charia di maye góor laal yaramu jigéen wala jigéen laal yaramu góor mooy ci cadre faju feebar la kenn mënula faj feebar bi ku dul góor yow jigéen nga dem fa wala kenn mënu koo faj ku dul jigéen yow góor nga dem fa ci anam googu rek nga mën a dem waaye yaram wuy metti moom amul ruxsa muy ak yombal bu ci charia def pour nit ki mën a dem ne dafay faju ji ci lu mel noonu loolu nag lañ doon leeral di wane ne mi ngi am ci dëkk bi police a ngi ci def liggéey di ci jàpp ay nit ndax tere gu ñu ko tere ci réew mi ci wàllu luwaa yi sax waxuma la wàllu diine tere gum ko tere waaye ay nit a ngi mbubboo kër defar ko ba mu rafet massage lañuy liggéey relaxé ak nangam ak nangam te yooyu yëpp ay mag léeg ñoo nekk ci ginnaaw ay jigéen dem ba bu ñu jaayee seen bopp du ñu jarati ñuy làqatoo ci ay xale yu ndaw yooyu nag lañ doon leeral di ko dénoncer euh, tey nag euh, ay waxtaan orientation rek la ak i leeral ci bis bi ñuy séenu incha allah muy tabaski axiru zaman nekku rek dañuy ñëw di wane lii baaxul lii baaxul donte looloo ci ëpp ndax aaxiru zaman la émission bi tudd waaye nag am na yoo xam ne danañ ko indi di ay dërs di ay leçon di mën a jëlee euh, ci jataay bi pour mën ko jëriñoo gannaaw ñi ngi dëgmal jaamu goo xam ne nag ñu bari ci réew mi ngi koy waajal yell na am yenn yu ñu ci corriger ci ñenn ñi ak fàttali ak it informé yooyu yépp day làmboo waxtaan wi euh, tabaski Euh, sunna la loolu mooy li gën a joy sunna la sunu feddali am na ñenn ñag euh, ci boroom xam-xam yi ñu ko def farata kenn ku nekk nag sa déggin ci ni ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee moo indi léeg-léeg werante bi ci ñii farata la ñii ne sunna la waaye madhabu malik ñoom dañu ne sunna la sunu feddali sunna la sunu feddali borom risaala bi muy wax sax daf ne sunnatun waajibatun sunnatun waajibatun waajibatun la wax ci texte bi borom samru daani ne sunnatun waajibatun mooy mu akkadatun mooy sunna la sunu feddali maanaam sunna su dëgër la dafa dem bay bëgg a mat farata te yeggu fa ñoom ci seen dégg sunna ñoom madhabu malik noonu la ñu déggee tabaski yeneen madahib yi nag am na ñu ne farata la boo demee ci naylul awtaar sharxu muntaxal axbaar min ahadisi sayidil axyaar bu imam shawkaani mu ngi indi kenn ku nekk layam ci li mu ne farata la wala mu ne sunna la kon tabaski nekk na loo xam ne lu nu sunnaal la ci nag ki ko man ala man istataaha ku ko manul nekkul sunna ci yow waaye képp ku ko man sunna la pour nga tabaski muy góor wala muy jigéen muy xale wala muy mag du jaamu goo xam ne mag rekk a ko war a def xale waru koo def ku ko man la jaamu ku ko man du jaamu goo xam ne tamit kenn da ciy yóbbaale kenn te koo ko man ko ba ci soxna yi danañ ci gën a def ay leeral tey ñu ci baree bari dañuy jënd cheveux naturel u trois cent mille juróom-benn fukki junne ñu jëndee ko kawaru jàmbur teg ko ci seen bopp bisu tabaski gi ñawlu la ñu ñawloo neer ba nu jënd ak ñaw gañ ko ñawee ak dàll ya ñu sol boo ko xaymaa mat na ñaar fukki junni juróom-ñett fukki junni ñu def ko ci seen yaram te mënuñoo jënd xarum ñaar fukki junni wala ñaar fukki junni ak juróom lan moo tax mënuñ ko jënd mooy sama jëkkër jënd na xar wala sama jëkkër léeg-léeg ñu ne jëndal na ma xar loolu ñàkk xam la te mi ngi ci societé bi bari na tey genre kinne caam gi yirim caam la ñuy basé wu ne yirim bu jëndee xar rek pour ñoom doy na kañ lay doy mooy boo manut waaye soo manee jaamu yàlla la goo xam ne ku ko man lañu wax ku ko mënoon nag ñu yóbbaale la waaye ki ne caam du mën a jënd sava naturel juróom benn fukki junni mu xaraam lool yàlla jéppi ko rasulullah yi jéppi ko malaaka yi jéppi ko ci kawaru jàmbur gi mu teg ci boppam ci bis bu toll ne bisu tabaski loolu nga xam ne moom nga teg ci sa bopp bi yàlla jéppi la ci luy na mënoo ko def maanaam bis bi nit ñi amee tuyaaba yow nga amee ci bàkkaar te mënoo profité am tuyaaba ana kan moo wax jigéen ñi ne leen seen jëkkër bu jëndee xar rek da leen war a yóbbaale te man ko déedéet soo ko manul lañu wax sariya dafa wax ne war na góor war na jigéen war na gor ñu génnee jaam war na xale waaye ala man istataaha ku ko man war na yow ku góor ki ko man nga tëbaskil sa bopp tëbaskiwaaleel say jege ñaale ak képp koo xam ne dundam yow la war waaye ci sart ban mooy ñu ñàkk sa parent sa yaay sa papa bu nu ñàkkee yow nga man ko yaa leen war a tabaskiwaaleel sa soxna bu ñàkkee amul lum jëndee xaar nga man ko yaa ko war a tabaskiwaaleel sa doom bu ñàkkee yaa ko war a tabaskiwaaleel waaye sa soxnaa ngi fayee ko salaire di liggéey di am xaalisam jënd sa ba naturel juróom-benn fukki ne te mënu la jëndi xaar naan sama jëkkër jënd na xaar du diine kat sa jëkkër day jënd xar nga jënd xar boo ko manee jaamu yàlla la goo xam ne ku ne lañ ko sas ku ne jaamu la goo xam ne ku ne lañ ko sas pour mu war koo defal boppam ba ci say jur say parents bu nu ko manee waroo leen a jëndaaleel xar bu ñu ko manee bu nu ko manee ñoom ñoo war a jëndal seen bopp xar bu nu ko manee maanaam ku ko man rek sharia danaan la defal ko sa bopp ba ci xale bu ndaw bi su fekkee xale bu ndaw bi ay parents dencal nañ ko ci compte am ay millions comme ni ko ñenn ñi defee bu tabaski jotee dañuy jëm jël ca compte ba millions yooyu jëndal ko ci xar foofu lu mat bàyyi xel na jaamu la goo xam ne ku ko man lañ ko sant soo ku ko mënul nag yow mi ko man ci kër gi nekk boroom kër man nga ko defal sa bopp man nga ko defal say waajur defaaleel kon man nga ko defaaleel sa soxna waaye lenn ci tabaski ci mbirum aaxiru zamaan la da gis am yirim caam moo xam ne am na soxna su tudd kinne caam ak ayda caam ayda caam a nga mbaaw kinne caam a nga kastoor mu jënd ñaari xar dem mbaaw jox benn dem kastoor jox benn kenn ci ñoom ñaar ku nekk xaram ba noppi mu nem jaaxal naan jëndal naa madam xar mais an sa xar yow muton madame muton mère mouton parent yi mais yow an sa mouton an sa mouton te ñu baree baree bari ci góoru Sénégal yi ñàkk a xam seen diine yóbbee na leen dañuy jàpp ne ñoom dañoo war a jënd xar jox seen soxna ba ndaw si léeg moom mooy bàkkoo sama jëkkër jëndal na ma xar léeg nga gis góor gu dang-dang yi ba dem jënd xar ñëw am ci ne am ñëw naan ko rey mu dee reyul mu dee moom du ma ko laal mais yow doo sant yow nga war a jënd xar ñu jënd xar ñëw jox la te góor gi réer a diine moo tax mu ñëw jox la ko waaye dafa war a ñëw indi xar mi wan la ne sama xar la sama xar la maanaam bu kenn jënd xar ne danga nga koo jëndal sama dam su boobaa madam bu ñu rendee xar mi moo am tabaski mais yow amoo ko lu war a am mooy da war a jënd xar indi ci kër gi madam mënu la jënd xar booy rendi nga yéene waale madam yéene sa doom yéene ñi la jege tamaanuñu loolu lañ dégle waaye tey ñu baree bari dañuy dem daral jënd xar yenu yóbbul soxna si naan ko sa mouton ngoog mais an sa mouton yow an sa mouton mouton madame avant mouton madame yow sa mouton mi ngi mel ne julli jot nga dem jël si jaada ak satala ñëw jox soxna si ne ko acca am soxna si jàpp julli yow nga dem tëdd jaaxaat est-ce que julli wàcc na la tabaski xurba la jaamu yàlla la jaamu yàlla la goo xam ne yàlla def ko sant ku ne pour mu def ko ku ko man kenn warula koo defaaleel waaye ki ko mënta defu ko yenent bi tëkku na ko abi hurayra radiallahu anhu moo nu nettali ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man wajada saatan wa lam yudaxi fala yaqrabanna musallaana rawawu ibnu maaja wa ahmad yenent bi nee na képp ku ko man képp ku ko man man wajada saatan képp ku am xaalis boo mën a jëndee xar walam yu daxi te demul jënd xar tabaski falaa na bu mu jege musallaanaa sunu jullikaay yi xadis la bu wér ci ay càlla la ci ay càlla la waaye soo boolee yépp ñenn ñu jox nañ ko garaatu xasan ñenn ñu jox ko garaatu saxiix mooy képp ku ko man te defoo ko yenent bi nee na bul jege suñ jullikaay yi ndax looy utee tuyaaba ci jullikaay yi ci xarma la ëppee doole bisu tabaski yenent bi dana defaluñ yàlla lu gën ray xar defaluñ ko yàlla waaye da nga gis célibataire boo xam ni jàpp na ne fekk amul soxna warul a jënd xar bisu tabaski jot mu jënd maraakiisu quinze mille jënd koppatib dix mille jënd jasneer cinquante mille ñawloo ko vingt mille li mu def ci boppam yépp wala ci jëmmam mat na cent dix mille wala cent quinze mille te mënul a jënd xarum soixante dix mille wala quatre vingt mille mais solu ci bis bi baax na waaye du sunna solu ci bis bi laa wax lu rafet la luy taaral bis bi la waaye sunnay tabaski mooy xar mi waaye léegi da ngay ñëw yow liggéey am sa xaalis ñëw ne waaw sama papa dana jënd xar wala léeg-léeg li am ci biir kër yi cotiser ta xarum tabaski kenn du ko cotiser déedéet kenn du cotiser xarum tabaski demal ci samru daani sarxu risaala bu ibnu abi zaydin alxayrawaani page 390 nee na 390 nee na dagan na bokk yool mais daganul bokk njëg ñetti ngeen ci biir kër gi ku ne joxe trente mille pour ngeen jënd xar daganut jaamu la goo xam ne kenn du bokk xar mi ngi mel ne julli kii du julli ñu war a julli tisbaar kii julli benn rakk kële julli benn kële julli benn déedéet mënul ne ku man julli keneen ki man julli keneen ki man julli ku dem ba mën a too dara sa xel nekkatu feeg yooyu mu wàcc la waaye cotiser jënd xar mënu nekk bokk yiw na cotiser jënd xar mënu la ne waaye bokk yiw mën naa ne bokk yiw maanaam mag nga ci biir kër gi say rakk amunu nga jënd yéene leen ci ñu am ci yiw wi loolu mën naa nekk su ko defee ñu bàyyi xel tabaski bu ñu suba la tabaski su arafa ci fàttali la bokk ñu bàyyi ci xel sopp nañ ko ko bi bisu tabaski gi tamit bu nu xëyee bëgg nañu balaa ngaa dem di julli ji nga bañ a lekk bañ a naan bañ lekk bañ a naan ba julli ji ba ñëw booy dem di julli ji nga kàbbar baale boo demee nga naafila toog xaar imaam bu ñëwee nga ànd ak moom junni bu nu jullee nga déglu xutba ba boo delloo sa kër rendi moytu attention jënd xar ba noppi baax xar mi baax lan mooy tax xar mi yàqu mooy rendi nga te sa imaam rendiwul ku rendi te sa imaam rendiwul ndawal nga am mais amoo tabaski ñu ba xel ñu nekk bitim réew léeg-léeg ñu am problème mu fa ñu dëkk fa ñuy rendee sori mu ami jafe-jafe jarul sonn jëlal sa xar yónnee senegal boo julli jee ba noppi woote ñu rendi la mën naa nekk nga saraxe ndawal la yéene ci jaamu yàlla mën naa nekk lu mën a nekk la defe naa ñu nekk bitim réew ñu ci bari nam mu ñu ndawal comme ay caameen ba bu ñu amul ca xar ma mu sonal leen jëndal xar yónnee wala yónneel xaalis ñu jëndal la xar nga julli ba noppi woote ñu rendi la ko seen waa kër jël ca lenn la ca des ñu saraxel la ko mën naa nekk dagat beneen bi xar mi ñuy jënd na foq jazaa la yonent bi wax borom xam-xam yi firi ko ñii ne mooy xar mu am euh, fukki weer fukki weer ñii ne mooy xar mu am at ñii ne mooy am xar mu xar mu am at ak lu topp lu mu néew néew lu mu néew néew na am juróom-ñetti weer lu mu néew néew waaye su manqué juróom-ñetti weer mënu la mat tabaski ci noonu dañ ñaan xar mu foq rek xar mi ngay jënd bu mu patt bu ñu waxee bu mu patt mooy benn bët bi gisul bul jënd xar mu silmaxa mënula tabaski yooyu ayib la yuy yàq xar bu pattee benn bët bi gisul mënul tabaski béjjën ba bu mu damm di nàcc yeneen mazahib yëpp nangu nañ bu béjjën bi dammee mën na tabaski mazhabu Malik ànd ak ñoom waaye mu indi benn sart mooy bu fekkee day nàcc nag du mën tabaski waaye bu mu nàccul mën na tabaski beneen bi xar mi bu mu feebar bu mu feebar feebar boo xam ne ku gis xar mi xam ne dafa feebar lu mel ne xar mu fër mënul tabaski beneen bi mooy xar mi ngay jënd bu mu nekk xar mu yooy mu loof moo xam ne boo ko reyoon sax du am geres wala ci biir yax ya yuq du ca nekk loolu tamit du mën tabaski nopp ba bu mu dagg nopp ba bu mu dagg maanaam këtt noppi ba mu jeex wala mu xotteeku ayib yooyu yëpp mooy tëndiku ko ci xar borom baax mi ngi leeral xar mu am xet ci gémmiñ gaag xar mu wéradeeg maanaam xar mu dof comme niñ koy waxee yooyu yëpp mu def ko comme sikk xar mi daal na nekk xar mu mat geen nga bu mu dog bi jën ba bu mu damm na nekk xar moo xam ne mi ngi gis na foq xar moom moom mat tabaski su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax boo rendee xar mi ba noppi nag yenent bi benn at ci mën na Madinatul Munawwara dana bu kenn denc ndawlu tabaski lu ëpp ñett fan déwén sa dellu si saxaaba yi laaj ko ne ndax nañ defoon daaw la ñuy def ren mu ne déedéet daaw crise taxoon ma ne leen bu kenn denc xar lu ëpp ñett fan waaye ren nag kullu wa atimu wa daxiru lekk leen ci denc leen ci saraxe leen ci denc leen ci lekk leen ci saraxe leen ci ci madhabu Malik borom samru daani risaala nañ ubbi ji buntu ba nee na kenn du ci jox kudul ab jullit kenn du ko ci jox ñu ne ko mais xanaa kooku majuus la mu ne mut mutlaxan kitaabiyan kaana aw majuusiyan madhabu Malik ñoom dañu ne ndawalu tabaski ab jullit lañ ciy jox kudul jullit duñ ko ci jox te loolu borom samru daani wax alkaafi fii fiqhi ahlil madina bu ibnu abdil barri moom tamit loolu la leeral ne xar mi qurba la jaamu yàlla la jaamu yàlla nag ci bisu tëbaski xar mi kuy wéetal yàlla ku nangul rasulullahi lañ ciy jox sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit ñu bàyyi xel bàyyi ci xel donte yeneen madhab yi nag yeneen madhab yi maye nañ ko mais madhabu Malik ñoom dañu lànk dañu tëj bunt bi ndax dañoo gis ne xar bi jaamu yàlla la te jaamu yàlla waroo cee jox lu dul ku nangul yàlla ak yeneen bi ci bisu tabaski su ko defee boo ko rendee ba noppi man nga lekk man nga denc man nga saraxe mais bul jaay dar ak lenn lu bokk ci xar mi bul ko jaay euh, lu ci nekk rek ku soxla der ba may ko ko waaye kenn du ko jaay su ko defee bu ñu tabaskee ba noppi ku amul xar ci bis bi ca suba ga wala ca ginnaaw suba ga yépp ay bisu tabaski la mën nañoo tabaarakallaahu euh, rendi bu nu amee xar bu ñu tabaskee bu ñu jullee ba noppi sopp nañ gannaaw julli gu nekk allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ba ñetteelu fan bisu tabaski buñ tabaskee ba ci su bëgg ak ca ginnaaw su bëgg ca fajar ca lay jeex waxtu julli bu nekk nga kàbbar comme nii ñu ko waxee su ko defee loolu mooy waxtaanu tay bii waxtu wi jeex na di fàttaliwaat rek jigéen ñi ak xale yu góor yi salibateer yi bàyyi leen naan bu ma amagul soxna ci lay tabaski ba ci jànq yi sax bàyyi leen su ma amul jëkkër du ma tabaski ku ko ci man ñu ci bari ñu ngi fayee ko salaire yor xaalis tabaski gi dañuy jënd or jënd yére jëndi dàll jëndi lépp waaye bu ñu nee xar nga naan sama nijaay sama papa sama jëkkër dina ma tabaski baa leen déedéet ku ne na jënd xarum boppam léeg nga dégg ku naan waaw kër gi ku ne jënd xar loolu yàq la foo ko teg benn xar doy na waa kër gépp bu ñu ñàkkee waaye buñ ko mënee na ñëpp jënd xar nu muy doone yàq senegal ñaata mënta jënd xarum tabaski góor ñi tamit nañ bàyyi jëndal naa madam yàlla waxu la nga jëndal madam bàyyi sa bopp léeg koo xam ne yor na ñaari soxna léeg ñu takk ko fitna kenn ku nekk mu ne def laa war a jëndal xar fu mu tege boo ko mënul jëndal benn ñu rey ko kër kenn ka ca des ñëw ca kër ga bu ko mënul mu dem ca euh, nga nga dagg ku ne nga yóbbul ko ndax ñoom ku ne waroon a jënd xaram kay su fekkoon ne mën nañ ko buñ ko mënul ba nga jëndal leen ko amul lu ñuy discuter ti su ko defee yooyu nañ ko gëstu ba xam ko ñu xam ne jaamu yàlla la goo xam ne ku ne la war ku ko man loolu lañ doon leeral ci bis bi di leen sant di leen gërëm nañ mooy moytu tamit nag deret ji di laal di def ci jéeg yooyu dafa xaram sobe la am na waaju bind téere di wax ci téereem gëneel yi nekk ci xaw ma tabaski mos naa ko wax ci rajo mu woo ma di ma tëkku di ma menacé naan ma danaa maa ngi ci sa kaw ndax dama ne woon dafa xaram ay deret nga ciy bind alxuraan ak naan deretu xaru tabaski am na njëriñ ma ne xaraam la ku ko bindee alxuraan la nit ñi woo ko nettali ko ko mu lijjanti sama numéro woomu moom mu bind téere bi naan ma dama dégg yaa wax nangam ak nangam na xam ne maa ngi ci sa kaw tëkku ma man dama faale yooyu noonu li yooyu def ma yëngal dafa xaraam kat sobee la deretu xaru tabaski bu ko kenn laal bu ko kenn jege di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi di leen balu àq nag di balu àq ñëpp gannaaw occasion la ci tabaski gi ñu jéggalu mbokk yi balu leen àq di jéggalu sunu borom subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla boole jéggal ba ñu tabaskeeg jàmm incha allahu taala ñu dellusiwaat ci beneen émission ci aaxiru zaman bi wasalaam.